asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di renouveler suñu respect ak suñu considération pour ñu fi teew ñëpp euh, monsieur le ministre j'ai pris le soin de lire euh, le programme 2050 du ministère euh, li mu indi yëpp bi ma ko xoolee ci wàllu li ñuy tuddee développement de l'offre touristique bi ma ko xoolee je peux je j'aurais pu lire li ñu prévoit pour la direction du règlement de la réglementation touristique 94 euh, millions école nationale de formation hôtelière 109 millions direction des loisirs 36 millions direction de l'investissement 16 millions direction de la promotion touristique 27 euh, millions SAPCO 2 milliards agence sénégalaise de promotion touristique 1,472 milliards euh, bi ma ñëwee ba projet de développement du tourisme des entreprises bon on a on a rien mis li ma ci seetlu mu nekk une préoccupation bu ma bëggoon weccoo mooy j'ai lu et j'ai relu j'ai regardé tous les programmes mais il ma semble qu'on n'a pas posé le curseur teguñu suñu baaraam ci la promotion du tourisme intérieur niñ ko ci war a tegee à mon sens mën naa juum nag alors moo tax ma ne woon je vais commencer automatiquement par dire lan mooy le vrai rôle du gouvernement dans la promotion du tourisme intérieur et comment il compte concrètement s'y prendre. Parce qu'on a vu, si nous analyse, même sur les analyses statistiques et économiques, peut-être nous pouvons développer. Mais, tey bu ñu amee problème pour développer le tourisme intérieur, lan moo tax ministère de l'éducation du tànn chaque année sur les quarante cinq départements les meilleurs élèves góor jigéen muy quatre vingt muy quatre vingt douze ou ou cent deux 46 fois 2 ça fait 92 mu dajale leen yóbbu leen ñu xam suñu dëkk parce que bokk na ci bëgg sa réew nga xam lan mooy njariñ li nekk njariñ bi nekk sa biir réew dinaa ci ñëw léegi lan mooy tax daara yi lan mooy tax université yi lan mooy tax le sport championnat bu mu mënti am arts martiaux les meilleurs ñu jël leen dajale leen yóbbu leen ñu xam tourisme intérieur ba tax ñu au moins créer société ci ñoom cette curiosité la parce que le bouche moo gën ci promotion li tax may poser question boobu li ma wax foofu mooy bu ñu def analyse bi sur les performances du secteur touristique en général on travaille sur quatre ou cinq critères capacité chambre efficacité des établissements d'hébergement touristique les recettes touristiques la valeur ajoutée des services d'hébergement et de restauration du transport aérien aérien et d'agence de voyage loolu lépp boo ko liiree boo ko xoolee techniquement amu ci lenn lu dellusi ci biir tourisme intérieur bi quasiment man mu posé woon problème ma ne woon dina baax ñun ñu toog fii ku ci nekk ci ñun ma posé une question mu jëm ci ñun ñëpp kañ la ñu mujjee dem gore ñun ñu toog fii ñëpp les cinq députés ak ñi ñëw fii kañ la mujjee dem gore c'est quand la dernière fois bi ñu demee Toubacouta dem Fatala l'île au coquillage kañ kan ci ñun moo jël gaal dem ci ñeenti îles Ngor. Yoff gore Île des Serpents wërandoo ko ci benn journée kan ci ñun moo ko mës a def may laaj kan ci ñun moo demagul Lompul kan ci ñun moo dem ci parc de Djoudj kan ci ñun les foor abandonnés je parle de forts abandonnés fii nga xam ne ni français yi nekkoon nañ fa abandonné ko forts yëpp ci biir Sénégal kan ci ñun moo def le tour des forts kan ci ñun moo xam baobab bi ëpp circonférence maanaam guy gi gën a rëy ci Sénégal fan la nekk ci biir Sénégal kan xam kan ci ñun moo xam secret yi nekk ci garabu lekkat yi nekk olampaan kan ci ñun kan ci ñun kan ci ñun maanaam ba ñu demee université piir ñaata téere la fa tubaab yi taal ak ban place la sëriñ si gasoon foofu pour suul fa téere yi ñu bëggoon mu mucc kan ci ñun moo ko dem xam ko alors li may poser ni question c'est pour dire ñun suñu bopp nous devons d'abord travailler à donner à nos enfants l'estime et l'amour de ce pays ba ñu xam kilifa yëpp fan la nekk ci biir réew mi su ko defee bu ñu màggee du ñu amati débat sur le on crée on suscite la curiosité par rapport à ça enracinement avant ouverture et on veut tout surtout sur l'étranger sur sur sur l'étranger maanaam c'est vrai c'est important parce que la destination doit être promue mais je pense que ñun ñu gëm ko ñu defar les taxations nécessaires les prix nécessaires pour yombalal ñu ko ñu mën ko def je pense que bu ñu ko defee loolu dina am solo trop. monsieur le ministre su ma ñëwee ci li ñuy wax les analyses économiques deux mille vingt et un deux mille vingt deux ak projection yi ñu def en deux mille vingt dama bëgg a laaj les recettes touristiques yi nga xam dañ leen capter à travers le poste voyage dans la balance des paiements. et la production de services d'hébergement de restauration d'agences de voyage et de voyagistes et de transport aérien suivi dans les comptes nationaux parce que mooy tax ñu mën a am des bases de travail yuy tax bu ñu bëggee def des analyses économiques sérieuses sur les projections ñu mën a génn ay résultats yoo xam ne tey boo ko tegee fii kenn du ci werante mais quand on nous dit 3 millions te demuñu ci lii ñu xam poste yii lan moo fa nekk pour nous permettre ñun ñu mën a projeté wu def les analyses contradictoires d' accord ak yow wala ñàkk a d' accord ak yow dafa mel ni am lu des sur la ressource d' information pour ñu mën a def les bons arbitrages et ñun ñëpp xam nañ des non résidents ne peut être apprécié qu'à l'un des résultats du post voyage foofu la ñu koy fekk ci biir balance des paiements bi fa la ñu koy analyser pour mën a xam fu ñu ci toll foofu fan la ak bu ñu waxee ni tourisme intérieur fan la ñu toll fan la. moo tax su ma nee sur les 3 millions yi nga xam ne moom la ñuy xaar ñaata ñoo jógee bitim réew ñaata ñoo war a jógee ci biir ci biir ci biir Sénégal mooy wax nii tourisme bi li mu laal dafa bëri dafa laal hébergement laal restauration laal transport laal service culture. laal le domaine des te benn ministère moom ko parce que dañoo wax tourisme et loisir mais boo demee ministère de la culture da nga fekk loisir boo demee ministère des sports da nga fekk loisir mais ñii ñëpp ministère de l' la la la la police des frontières bi nga xam ne kuy dugg ñu ne ban visa la am ñu ne visa touristique ñu mën a xam ni kii touriste touriste moo ko fi indi waaye keneen ki nga xam ne affaire la ñu mën a def nous mën permettre ñu am les statistiques nécessaires pour ñu mën def les projections qu'il faut et au vu de cette transversalité li ñuy recommandé mooy ñu créer cet écosystème d'échange entre les ministères parce que sa liggéey bii li muy li mu li mu war a jur ñeneen ñi bu ñu jàppul dina sooxe ci wàll boobu parce que information yu bëri dafay jóge foofu war la fekk si wala mu jóge ci ñoom ñëw ci yow pour la promotion du tourisme dinaa ñëw ci analyse économique yi war a def bu ñu bëggee def la promotion du secteur redevance bi ñu wax ak taxation yi monsieur le ministre des finances laa koy laaj est-ce que def nañu les analyses économiques et les modélisations yi tax ñu xam ni bu ñu defee réduction TVA bi ban ban ban efficacité la ci am wala RDA bu ñu ko waree wàññi ban efficacité la am pour ñu xam fan lañu ñu war a teg suñu baaraam aussi pour def une promotion mais dans un sens des analyse économique bi ci war ba tax duñu duñu duñu juum ci suñu analyse et am na ku ma wax léegi mu ne ma naa ko laajteel quest que le ministère a prévu en collaboration avec le ministère de l'enseignement supérieur pour accompagner le département du tourisme et de l'autorité de l'université du Sine Saloum loolu dafa am ku ma ko yóbbante woon yóbbante àq la ma ñëw nag ci li nga xam ne bii wax nañ ko muy King fat Palace monsieur le ministre boo seetloo ñi laajte question fii yëpp ci King Fahd Palace laajuñu question pour ne baaxul dañoo laaj question pour ne nañ ko def ci yoon boo xamante ne bii mooy tax mu jariñ li mu war a jariñ dañoo wax rénovation nombre de chambres 378 ñu rénover deux cent seize chambres entreprise bi ñuy wax style wala style bu ñoo xam nu ñu koy tuddee six milliards la fa jóge la fa la fa la fa liggéey MTA cent soixante dix millions ak s e total bi sept milliards la te ñu ngi waxoon dix huit milliards mooy liggéey li ci des fu mu jëm. ma ñëw ci ne licenciement pour motif économique quatre vingt personnes la ñu def licenciement pour pour économique ñi jàng tuuti droit xam nañ ni licenciement pour motif économique bu amee. de l'instant que ki defoon licenciement pour motif économique bu am bu bu génne ci à meilleure fortune ñi ñu ñi woon dañuy nekk ñooy am priorité de l'embauche loolu analyse boobu est-ce que ñu ngi koy def en relation avec le ministère du travail pour ñi nga xam ne bi ñoo fa nekkoon pendant vingt et un ans ñu xëy suba teggi leen loolu pour motif motif économique et bu ñu waxee licenciement pour motif économique li muy indi parce que bokkul ak Covid bi dinaa ci ñëw li mooy a une préoccupation ñu ne kon kii faat mi ngi alors que ñu ngi licencié pour motif économique est-ce que ce n'est pas contradictoire beneen bi may indi mooy dafa am ci biir Covid bi 75 yoo xam ne am na ci biir Covid bi alors que le pacte social de stabilité dafa waxoon ci garantie yi nga xamante ne bii patronat war na ko joxe bokk na ci mu conserver au mieux les emplois te jàpp naa ni aussi bien licenciement pour motif économique wala pour licenciement dans le cadre de la Covid solution bi waroon a jiitu moo nekkoon la réduction des salaires. parce que saa yu suñu woowee les délégués du personnel li may wax ni ministre du travail xam na ko saa yu suñu woowee les délégués du personnel toog waxtaan ak ñoom ne voici la situation économique bi ñu fi nekk on est proche de la fin boo leen ne dañuy def réduction des salaires pour conserver tous les salaires kenn du ko bañ parce que dañuy xam ñoom aussi c' est des valeurs de la valeur ajoutée pour la promotion de l' bu leen xamalee cette réalité la amul benn benn benn employé bu bañ réduction des salaires pour sauver son son de travail mais on part vers des et après on nous dit qu'il y a eu d' de préoccupations monsieur le xam ni bëggoon La parole est à notre collègue Elage Oumarioum.